bokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñu seetaan ci Dakar Actu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal tey nag li ñu fi tax a teew du lenn lu dul rek mooy joxe benn information boo xam ne pour waa kawlax la waaye ñun dañuy lott ci joxe ko ndax dañoo toog ak jëmm ji toog muy Serigne Babacar Mbacke mu kabaroo moom Serigne Moussa moom Serigne Bassirou kon dañ koy jox kàddu yi rek mu waxtaan ak askan wi xamal leen lan moo xew Kaolack Mbacke Balla ñu ngi ñu ngi ziar baax di jox ñu ngi teew seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen nuyu di leen màggal bu baax di sant yàlla di julli ci yoon bi di santaat Cheikh Ahmadou Khadim sëñ Tuubaa Cheikh bu mu taxaa di ñaan mu yàgg fi te wér waaye di ko ñaanal sëriñ Cheikh Jëm Fall mu yàgg fi lool te ko wér di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yëpp rawatina xam généraux yi suñu moom yàgg fi te ànd ko wér barke Cheikh Ahmadou Khadim waaw di eh, ñaan suñu waaju baax ji nga xamante ne dafa bàyyi ko bu yàggu rek di Cheikh Abdoulaye Fall si di ñaan yàlla fi mu jëm yàlla ko dàqal fi mu nekkoon yàlla yokk leen tas ci barkeem ak njabootam suñ ko afoon te mot li yéene yëpp dañ bokk ànd ànd ko mbokk jullit mbokk tal yëpp waaw ak bëggam la ba ak yéene ak yitteem ak pas-pasam jàmbaar jàmbaaru islam ji mu doonoon jàmbaaru Sëriñ Tuubaa ji mu euh, doonoon jàmbaar Maam Cheikh Fall ji mu doonoon yaakaar naa ñëpp xamoon ak soppam Cheikh Ibra ñëpp xamoon ne da nga doon gi mu doon tal bi Sëriñ Tuubaa waaye ñëpp ko nangu loon sët gi mu doon ci Rasulullah sallallahu alayhi euh, bokk ca gànnaar dégg nga bokk ca xeej fa gën a baax waaye ñëw jaay ak jaay ak bokkam jaay ak juddoom jaay lépp ma jëndee ko ab taalibe waaye kon ñi sant bu baax tabaarkalla di sant nag mboolem Kaolack yëpp nag kenn ku ne xam na ne si Ibrahima Fall amoon na cër Kaolack te cër boobu yëpp da nga bëgg mu bëggoon Kaolack la du waa Kaolack ñoo ko bëgg waaye moom moo bëggoon bopp mu waa Kaolack loolaay loolaay wax wax saa su nekk bi sëñ Tuubaa Cheikh Mountakha ñëwee jaaral nii rek gis nga dafa wax ne eh, jàpp ne moom la moom la sëñ bi gana si ndaxte Kaolack dëkk da nga woo mboolem taalibeem ñu nekk Kaolack yëpp taxawul taxawu bu baax soño ci soño yi am solo da nga defar ay benn yoo xamante ni ndékki ak aja reer yëpp bokkoon na ko indi fii ci kër sëñ bi waaw mu nekkoon lu yaatu loo xamante ni bis boobu daanaka su su toggoon moom dong la mu togg rek da nga doyoon na gan yi yëpp waaw dongam boobu ñuy wax nag sëriñ Modou Gisee nga xamante ko defal ak cant at mu jot di ko def cantu Cheikh Ibrahima Fall Tilal la cat googu da koo jàppoon lu jiitu sëñ bi di wujji wujji boromam waaye ak cat nag da ma maam mooy ku ku yëg ne defal nañ la ngay sant waaw te suñu borom moo ko wax ne naan naan su ma su ma defee nag ma sant soo ma sante it da am na nga nag ma jéglu waaw soo ma jéglu nag ma ñaan waaw kon yaakaar naa cant gi ñett yooyu la woon waaw kon nag dem ak bi du tey dégg cant kooku day wéy day day continuer di am ba léegi incha allahu rabbi mm-hmm. bis ba mu ko jàppee woon rek da nga gis bis boobu lay muy 14 avril incha allah la le mars waaw 14 mars yaakaar naa mooy doon samedi bii di ñëw incha allahu rabbi waaw dégg nga dara dindiwu ko waaw noonu mu ko defee woon ci ndigalu sëriñ bi nga xam ne boobu ci teewaayu sëriñ bi la woon bi sëriñ bu jee borom it ndigal loolu moom dégg nga woy rek te at mu jotee dégg noonu la koy woy lee ndaxte daam lu baax la woon jang alquran la jàng xasaay de nga dajale mbokk julle mbokk taal beeg mbokk dëkkandoo yi def ay bende de nga bende len fexe ba ñëpp bëgg ngir yalla yonde jibu suñu Tuubaa de ko lool dara du ko dindi rawatina kon kilifaam kii dem de nga dañ ko ci ñaanalaale wa kon samedi bi di ñew ma nga jox rendez-vous mboolem ku dëkk Kaolack ak li wër Kaolack de nga mboolem julli yëpp murid yëpp bayuma kenn di wo suñu Mortalla Fall di ñu njaboot sun Xadi bara de nga di wo suñu Mortalla wadi bi nga xam di mo fi kaddu suñu Cheikh jëmb di wo ala sen sek mi nga xam mo fi kaddu kàddu general euh, des murid de nga suñu Tuubaa Cheikh Modou Mountakha ñi ci wo woo ñëpp kenn keroog bi ma lay wax keroog rek bi mu faatoo it la ma sëñ wax def ne ma dafa am ñaari cër ci sëriñ Touba mbokk la ci sëriñ ba naa ko seedeel ndaxte buntam laa woon dégg maam ci diggante ma woo bi kon xamoon naa bu baax a baax a baax yitte ak fi ko sëriñ bi teg ak ni ko sëriñ bi daan xaaree saa yi mu sañoo fu mu mën a fekk sëriñ bi bi muy dégg nga mbulkayel muy Touba muy fii Kaolack muy Porokhane fu mu ko fekk lu suñu mu doon jàpp dina ko bàyyi dégg nga déglu ko wax ak moom soo xoolee fii ni muy waxee moom bii suñu Muntaxa ñëwee fii li suñu Muntaxa ni mu daggee nuyoo bi doon wax ak rek da nga xam ne kii am na fu mu ko teg waaw kon nag dégg nga sant yàlla bu baax rituwarkalla Chérif Abdourahman Tilala nu doy mu doyloo Serigne Bamba mi yaaminu Chérif yaay sa tub مصطفى أحمد رسول كريم تموي مؤمن شربي عين دم اللامب فالويرو gën buntu bi yoon wi yow yaa jubóog buur bi kun